bàyyi jox ma leen ñii lappi lappi. xam nga bas nag. ngeen baax na mais lii la Batika doon wax Batika nee na am na mbër yoo xamante ni matuñu dara ay saafara la mbooloo yi ngay wax sànq Batika nee na yéen moom ngeen doon ba pare da ngeen di génn ci presse bi. jékki-jékki rek média bi kenn ñëw seet si leen ngeen toog commencé taay bi instant yi entraîné nga sa épaule taxaw na macha allah yor nga jëmmi mbër yor nga taay bi mais da toog fi mu toll nii kuñ la wax nga attaqué kii kuñ la wax nga attaqué Kalso lamb dafa metti de. lamb lu mu métti métti métti lamb lu mu métti nit am nga droit nga laaj ko loolu neex. Hmm. lamb du mars. mais promoteur fekkante na promoteur mos na laa seet si wax la ci ci benn combat. Hmm. ci combat yooyu noonu. jamaïcain jam à part jama à part jamaïcain à part jamaïcain euh, père père Birahim. Hmm. père Birahim woo na ma damay wax combat. père Birahim mais boobu ak kalaaf la ma doon wax nag père Birahim mi nekk suñu manager igri. Ah. xam nga Ousin Ousin léegi promoteur la quoi Ousin. Hmm. boobu daf ma bëggoon a booleeg Ousin pour Ousin tëggal ma combat. Hmm. mais ci ñoom la des. naroon naa bëri ren de mais xam corona bi xam nga kenn mënu ci dara. Hmm. lépp la taxawal mais bu doon loolu ren jii da naroon a gis ma bëriwaat. Hmm. yow gis nga sama génn bu ma saan am hmm. bu dee ceeb bi neex nit daax maa togg ceeb bi neex. ci laa mel man man maa fi daan bëre. di defar bool bu ne ginaar amul kenn ko fi def. déedéet ban mbër moo ko fi def. de. waxal sa akula taala. barke bu subaa ñaata avant ngay euh, ñaata nga daan ñëw sama kër daan fa lekk ci daan ñëw di ànd man dem esat jëw na ñëw téye sama cumikaay. ñaata ñaata sama sama cumikaay daa ko téye. man bi waaw ah. ah, jërëjëf <laughs> jërëjëf fi mu toll pare nga pour yàq sama der. pare nga pour tuubaal ba sa der moom du ma koy yàq. maa am nga ci ndam kon. man de moom ku ma téyel dara nga am ndam moom. maa am nga ci ndam. no sama benn sa yor na sama benn combat nga mos a ñëw. Hmm. sama benn combat nga mos a ñëw. muy ba ko Euh, bi mu doon bëri ak euh, booy bi nekk fële nu mu tëddi booy bi nekk Tëngéej. Hmm. à part boobu moom sama yeneen combat di yëpp ñëw. non mais bul wax loolu parce que man amateur la man dama doon damay dem ci làmb di seetaan malgré boobu ñëwaguma wasaare. Hmm. mais sa combat ngor seetaan naa ko sa combat ba nga bëre woon stade ngor fekk euh, seetaan naa ko sa combat bi nga bëree stade Jom Iba Mar Diop fa la ma fekk. Euh, waaw sama ñaari combat yi ñëw ñaari yooyu ñëw naa ci. mais tam làmb dafa am loo xamante ni. Calcio hmm. faw ñu waxtaanee hmm. muy tey ñu ngi ñu bari ñu ngi naan làmb suux na làmb daanu na làmb kii na te man xam naa ci ay sources yoo xamante ni. Euh, feebar bi moo tax. bu du feebar bi fi mu toll nii mu ngi la fekk bitim réew. ngay defaat beneen sport muy MMA léegi bugg naa nga expliquer ma lan moo la ci dugal lan moo la dugal ci MMA bi ak lan moo tax nga bugg a dem gën a gën a gën a gën yokk sa expérience ci MMA bi làmb Sénégal dafa doxul wala MMA bi nga gën a bëgg ka làmb ji. non MMA boo gisee ma bëgg ko def. boo gisee ma bëgg def MMA xam ci suñ émission bu ñu mës a def may yor bi ñu jëkkoon a def waxoon naa la ko. man la sama jabar mi ma doon lijjanti am na am na coach boo xam si boole na ma ak moom. mais dóor yi may dóor nii. duur mi duur xajul ci làmb ji moom moo tax moo ko bàyyi làmb. Hmm. waaw. duur MMA rek laa ko mën a eggalee. Hmm. MMA kese laa mën a eggalee loolu te bu soobee suñu borom bis dina ñëw da nga gis may yor drapeau bu Sénégal. Hmm. un an koy def boog suba ngoon. di fay xaalis bu bëri. la woon ak léegi bokkul de. te li mel noonu jur soo mën a parce que vidéo yëpp gis nga ko. lu mu def yow envoyé naa la ko loolu moom moo waral nag ma bëgg a bàyyi entraînement bi entraînement làmb taxul man may entraîné man MMA moo tax may entraîné hmm. mais nekkul ni làmb moo tax te incha allah fii ak deux da gis yow loo da nga sa bët. MMA métti maa ngi félicité Siteu ak euh, su grand suñu grand bombardier wala suñu papa bombardier euh, di félicité bu baax a baax a baax rëg-rëg moom it yeneen champion yi ñu ngi dugg si am na ñeneen ñuy wàcc. dugg si mais bul yaakaar ne MMA dafa yomb de Kalso MMA est-ce que gënul metti làmb ngay tëdd ñu lay dóor te làmb boo daanoo rek. làmb ja jeex na yow man nit laa kaawoo nga may wax ay waxu MMA. kaawu nga ay di démb fi la la fekk. bu tey neex rek nga fàttali dem non bul wax loolu parce que ñiy seetaat xamuñu kan nga kaaw bul ma wax man man man duma ci dara mais ñi lay seetaan bëgg na ñoo xam kan kan nga kaawoo kan nga kaawoo. ñi ma kaaw ñëpp mënu leen taxaw fii di wax. tey képp koo xam si képp tey képp koo xam si tey wax naa fi wax naa ko fi rek. Mm-hmm. dina taxaw fi génn suba di may laaj di laaj revanche te fi mu toll nii naa foo xam si du ma joxe revanche. Hmm. revanche moom du ma ko joxati làmb hmm. li sama kanam kay laa xool micro bi. li sama kanam li sama kanam <laughs> li sama kanam laay xool mais sama gannaaw li ci ne du ko xool. Oh. mais bi ngay def ak man émission dama dama am lu ma fàtte. dama la fàtte nuyu nuyu sa caméraman Bas. Mm, sëñ Basirou sëñ Basirou. Mm. parce que ay nit yu baax ngeen. instant bi nii jamono ji ñu toll nii Sénégal bu ñu fi dee wax. Mm. à part TV yéen yéen a ci topp. te li ngeen def sax kenn def ko parce que yéen ak ba États-Unis mbëri fi nekk ñëpp yen a leen di defal ay émission kon xam nga ni yéen ay champion ngeen. kenn werante wu ay champion ngeen dama leen di ñaanal yow mii nga xam ne yow nekk. reporter dama lay ñaanal yow yàlla defal la gudd fan ak wér geram hmm. yàlla dàqal la cat saytaane hmm. sëñ Basiru mi nga xam mooy sa cameraman hmm. moom suñu sëriñ la nit ku baax la seen diggante bi yàlla na ko yàlla saxal ba dara lu ñaaw di ngeen ko ci gis ba dara loo xam lu ñaaw di ngeen gis ci bi ñuy waxtaan bi dama am fàtte nuyu sama mbokki nekk Afghanistan Afghanistan ah, xam ah. Afghanistan def naa fa defoon naa fa euh, mu xool defoon naa fa un an Afghanistan Kaboul waaw. Mm-hmm. la fa dëkk guerre ga. waaw mais ba ma la dem kese doon jàgg ay xeex. xeex yi ma jàng xeex. barki maam Thierno Birame yow xeex sax daf may jàpp. Eh. façon xeex yi ma jàng moo bëri. Eh. façon xeex yi ma jàng dafa bëri. Mm. mais euh, Fall euh, kii Baye Jili. Baye Jili. maa ngi gërëm bu baax gis nga fi nga ma fekk nii salle bi nga ma fekk nii. salle bi nga ma fekk nii. champion bu ne fële na jugee na génne na fii. salle bi. télé bu ne ñëw na fii ci salle bi. Ramdan fekk nañ ko ci salle bi. Garga fekk nañ ko ci salle bi. Garga fekk nañ ko ci salle bi. Hmm. Pape Mbaye fekk nañ ko ci salle bi. Hmm. bu fi jugee maa ngi sant di euh, nuyu gars yi nga xam ne ñoom nga fekk nii ñëpp ñu entraîné. xam hmm. nga ah, jël nuyoo bi teg ko nag ki nga xam ne moom mooy kilifa gu mag. Hmm. di capitaine bi di maam Xaadim. Hmm. ak sama xarit bee di Ndour borom aéroport. ay borom baax rek nga fekk fii de. Lac de Guiers numéro 2 sa gannaaw nii xam naa bu ñu moom il faut ñu jox ko combat quoi. calcio mbokk yi kooku mooy calcio bi nga xamante ni mooy Garga 2 bu Sénégal bi calcio bu Sénégal calcio dañ lay jaajëfal bu baax a baax a baax ndax ñi la doon bëggee bari na ñu bëggoon lii bari na yaa la bëggoon di la bëggee mooy loolu bari na quoi. waaw mais jii damaa yor damaa yoroon ab feuille de. sama saak bi dama ci yoroon feuille boo xam si ñi ma war a sant dafa bare. bari da yow ñaar rek lañ la xamal man ñaar laa la xamal. waaw ñi nga war a sant xanaa. sa jabar bi ne fee ñu tudd. waaw mais sama dama war a wax ci anglais. ak Kal ak Kalidou. Ah, ma làkk ma làkk dafa bëri waaw. non non suñu doyen. non ah il kooku moom mooy kooku laay jëkk ah, sax. damaa jum ndax xaw ma ko sax. kooku laay jëkkër sant. boo koy dégg rek mais xaw ma ko Kalidou. ah dinaa la boole ak moom. di jóg xaw ma ko ak mën a joxe ginaar. xaw ma ko <laughs> xool nga fi mu toll nii moo jigee fi mu toll nii <laughs> directement këram laay dem. ndeysaan. Uh-huh. ma ma ma génne fooy wala moom ma ñàkk waaw bu la neexee bi génneel may naa la nga lim ñëpp. est-ce que fooy gars yi bàyyiwuñ ko woon sax. wala yow da ko ah, da damay damay anglais laay wax da ah anglais ngay wax. waaw damay nuyoo sama mbokku anglais. waaw ayca. waaw ah, bu ma fa jigéen nag soog a sant. Hmm. ñëw ci anglais. bu ma paree bu ñu demee ba ci kër gi naa la ko tekki li ma wax lan la. Mhm. waxal. yàpp naa client bu ma du yàqale fenn. ay ceeb maa ngi yow li ñu def ci yow émission yi ñu mas a def yëpp bu tay bi rek moom moo ci. boo ci dàq sax. Ah? dafa bu tay bi dàq waaw. I'm very happy eh? to receive you here in the waiting room eh? on this holiday of Friday and. the same time, uh, I greet my fans around the world. Uh, I salute my wife, who is currently in, in England. Uh, foofu rek laa yem. at bu jot beneen phénomène bu bees. dëgg la waaw ba yama daan jox ak yi bokkul xam nga bu bees la. dëgg la wala ma delluwaat ci dégg nga bu baax est-ce que yow dégg nga anglais. bon bu leer laaj. ah dugg na sama bopp di leer na laaj. loolu bu dee bu dee ci France xam lan la. leer na laaj loolu leer na. gën ah. a faram-fàcce leer na laaj. Ah. ñu lay seetaan ñëpp gi ñëpp gi ma faram-fàcce. ayca loolu xam lan la moom mooy waa kontaan naa ci ñëw bi ngeen ñëw fi ci euh, salle de musculation bi. dëgg la. man lañ ci bisu bisu màgg bi nga ma fekk muy bisu àjjuma. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. man ni man maa ngi sant euh, maa ngi nuyu sama jabar di nuyu tamit sama fans yi nga fu ne ñaa nga fa. Mhm. loolu la. loolu rek nga wax dëgg la léegi naa la bàyyi nga gërëm kon nga gërëm ñu tàggoo. gërëm bi bu dee am dama koy jëkk ci fii ñi gars yi nga xam ñoom nga fekk ci euh, ci ci salle musculation bi. ñu nga fekk bàyyi ma fi kenn ñoom ñëpp bàyyi ma kenn kenn kenn kenn mm. ak borom saal bi nga xam ne moom moo ñu yaatal fi muy bàyyi laay mm. mu jël affaire bu teg ko ci Moussa bi nga xam ne mooy rakam mooy fii muy koñ bi quoi mm. mu jugee foofu nag da nga may il faut ma dem Afghanistan soo ko desiwaat Sénégal ay ca demal Afghanistan demal demal Afghanistan demal foofu lay ah ma dem waaw maa ngi maa ngi dem Afghanistan. ca Kaboul. dafa nuyu sama benn grand bu fa nekk ñu wax al al Muxtaar yi. Uh-huh. moom capitaine la foofu. waaw mu jógee foofu nag. Uh-huh. dem Gambie. nga uh-huh. xam nga Gambie moom kenn ko fàtte moom ci nuyoo. dëgg la Gambie maa ngi jël nuyoo ko ci jeena ba jàll borom ceeb dëgg la jeena ba jàll moom ak ay mm-hmm. mu jël ko teg ko ci ñëpp. Mm-hmm. képp ku nekk Gambie sama xarit nekk Gambie sama sama nekk Gambie yëpp. yoo xam ne waxoon naa la ne la Gambie bu mu fa sa waay tëgalee. Mm-hmm. xam nga noonu ngeen ma tëggal combat foofu. Hmm. la ma fa yor supporter mbër yi fa sax amuñu ko. Gambie. waaw. Hmm. sama commande dë naroon na fa taxaw lan ma ko yàq. loolu xam nga ci lu bëree bëre. waaw li ko yàq ci li ma xamoon dañ la bëggoon jox mbër mu dëkk Gambie nga ni doo bëre ku dëkk Gambie. waaw du ma bëri mbër mu dëkk Gambie parce que mbëri dëkk Gambie. ñoom xam nañ ma mbëri dëkk mbëri dëkk Gambie. Hmm. amul benn mbër boo xam si dana ci ñeme bëre man. xanaa kenn mën a waroon a bëri ak man muy xoyantaan bi nga xam ne moom moo doon bëri ak Baye Mandione hmm. te jamono jooju dafa fekk xoyantaan mi ngi nekk mi ngi am combat loolu moom moo taxam sa moo xam ne ko boo may indil indil ma mbërum Sénégal ma daan ko fi ci biir Gambie bu pare ñu àndaat maag moom ñibbi Sénégal hmm. après nga taamu ci wulli daal nga yaakaar ne wulli nooy neex la da ngay jël wulli wëlbati ko daan <laughs> yow bàyyi maag wuli wuli champion la wuli dafa wex de wuli ñeme nga ko nit mën na koo ñeme bu dul làmb yow wuli mas nga wuli ci digg wuli mas nga ko amul mbër bu musa attaqué wuli mas nga gis muy entraîné waaw fekk naa ko salle de musculation yow mas ngaa gis wuli muy entraîné waaw am naa sëñ Bass fekk ko salle laa musculation wuli day entraîné wuli day taxawaal bu heure bu ko jot bu ngoon jotee mu defar cereem lekk naan nga am ay ah wuli champion la de. te da nga ma bëgg a jox wuli te nee la man kooku du ma bëreeg moom man nee la li may escouade wuli bu ko escouadé dafay jóge am problème mu genou ñu opéré ko mu bàyyi làmb ji lu bëri xam nga ci man. léegi tàggool tàggool. sant a baax yéen waa li euh, làmb. jël see wasaare làmb. non wasaare làmb. dégg naa ne temps yi yéen yemu leen ci làmb kese. Hmm. <coughs> dégg naa ñu ni yamu leen ci làmb kese. loolu nag moom laa leen doon ñaanal. Hmm. wasaare lamb xam man Sénégal ku ko xamul àdduna bi ku ko xamul tamit amul. Mm. li ngeen di def ci États-Unis seen waa ne seen reporter bi ne États-Unis ñu tudd ma nuyu ko. ATM ATM. Mm. Mm. na ma dem jëlee li jëf jël mu def ak jëf jël émission. jël na ko xanaa seetaanoo ko. jëf def na jëf ak émission jël nañ ko ñaari yoon jël nañ ko ci safar bi jël nañ ko. jëf ah ci safar bi kon ah. seetaanu ma ko. ah di nga ko seetaan ma ATM bu baax. boo ko jotee nga ne ko man maa ngi koy nuyu bu baax parce que liggéey bi mu liggéey ci États-Unis gars yi gis nañ ko. wasaare bi nañuy ñaan yàlla mu dem ba ngeen nekk ay télé yu mag a mag a mag a mag te incha allahu rabbi yàggul sax ngeen dem ci. Mm. maa ngi lay nuyu yow bu baax. di nuyu sa caméraman bi sëñ Basiru. Mm. sëñ Basiru. Mm. ak bu baax borom mbég meeg taar borom mbég meeg taar mi nit ku baax. yu rafet yi ngeen di def yëpp ak li ngeen di wax yëpp maa ngi koy dégg. ndeysaan mu fa jógee nag maa ngi nuyu samay rakk yi ne bitim réew ñëpp. bàyyiwuma kenn. sama rakk yi ne ñi ne Espagne. Italie ñi ne France day door waaw door la waaw. door moom baax na abal rakk yi ne foo xam ne jëloon marto bi maa la ko ngi maa sama rakk Alsane. waaw di nuyu sama rakk Babacar. Uh-huh. Laye Sarr. Uh-huh. di nuyu sama rakk Mbaye Ndiaye. Mm. moo fa jugee foofu ñëw jox nuyoo bi def ko seen xalifa Moodu. Mm. moo fa jugee. nuyu suñu waa kër ñëpp bàyyiwuma kenn. àllin ak ay rakam ak mm. yaayam. Mm. bàyyiwuma kenn ak papam mm. Kalidou Diop moom kooku moom bis dama ñaan bis ah, boo amee jot. bu fekkee avant avant avant may dem Gambie. boo amee jot bu fekkee jëlaat jë ama kii woo quoi amoo euh, rendez-vous yàgg yeneen mbër. nga ñëw ñu defee émission këram. bëgg naa xamante yow. Hmm. Kalidou sama booy la sama lépp la sama xarit la. Hmm. moom Kalidou Diop kontaan naa ci moom trop. Hmm. yu baax yi muy def ñëpp xam nañ ko ñëpp yéen nañ ko. nit ku baax la fàttewul démb quoi. nit baax la fàttewul démb. bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu tamit sama rakk yëpp yëpp bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn. soq maa ngi ko ñaan combat bi mu waroon a bari nii. buñ àjjee. yàlla na daan jël bu rëy te bu fa jugee. bu fa jugee. bu fa jugee. gàmmu la am de doomu lebu bi. gàmmu dooree mu neex bu bëree mu neex xale boobu. sox boo jugee foofu noonu boo jugee ci gàmmu gay xam nga soq kan laa bëgg nga jël ko Malick ñaami fi gaa yi bàyyi nga jël ko. combat bu man maa koy doxal. te nga fee bàyyi. loolu de mooy jéggeegoo dex di ree ka yow soq jéggeegul gàmmu gay ngay attaqué Malick ñaami dégg naa la. <laughs> dégg naa la Kamso dégg naa la jërë jëf mbokk yi kon euh, kon baa lay jaajëfal bu baax baax a baax a baax. waaw wuy ma baax lay jaajëfal waaw waaw dafa naa mu sa waa ji Lac de Guiers numéro ma la. Hmm. Lac de Guiers numéro 2. Euh, dama bëggee moom après nga wutal ko combat. Hmm. moom moo nekk champion saa hmm. moo nekk ni gars yi. maa kii bëgg naa nga jël ko combat nag. pourtant ku bëre victoire la. yoon la de. dafa am combat kii ak ka bëre victoire ndaanaan la de. gisoo ko géant la salle bi moo gëm. mos ko gis mos nga gis ku doy nii. <laughs> yow bi man da ngay damay bëre may champion. noo man. <laughs> la la dëgër numéro la dëgër numéro 2 am na bu ma xam. waaw bi benn bu boppam la. Ah. moom de macha allah moom koo yaakaar ni war nañ la koo mën a jox ci làmb. Ah, Mariñaar wala Sa Thiès. combat la. combat la. barki alxuraani karim. non kon ah. gars yi ah, boo ko jëlee comme bu ko jëlee gars yi dañ koy dawle. làmb daal làmb la tudd. Eh, toog saal entraîné. yëpp kii koo koy kii koo jox. ah. jox yow. moom xam nga làmb. moom météo bu dóor dóoraat combat waaw mais du sa doomu ndey. ah luy doomu ndey làmb amul doom ndey doomu ndey amul ci làmb. làmb sport la boo xamante ne ku nekk day day day. liggéey abar métro koo koy joxaat. non moom métro duñ bëri parce que kii sama xarit la métro sama xarit. ak combat boobu non yooyu du. écrit boobu moom jóge fa jox ko ñeneen. moom maa ji maa la. maaji maaji bu géej waay. waaw ay maaji maaji. non non dund yow maaji maaji jóge ci accident nga bëgg yi rayaat ko. jërëjëf vraiment nag yi Fall yow daal. Kalso jërëjëf. kon kon kontaan naa trop nag barke alxuraani karim ba pare. suñu xuloo ba bul jooy nag kon dafa <laughs> fàttali ko suñu xuloo ba bul jooy. jooy suñu xuloo ba ndeysaan maa ngi xuloo woon nañ fi de donc lu yàgg duñu wax ndeysaan bul jooy nag boo jooyee sama xol day fees day sedd mooy loolu bul jooy. Kalso tey sama waa ji ndeysaan ak baax na kenn du moom mbokk yi ma leen di jaajëfal bu baax a baax kenn du yow. barke alxuraani karim dañoo amoon problème ma dañoo amoon moom kii ñoo am problème lu mot parce que ay ñeentaat xaw ma ñettaat waxuma moom. Ah, keroog benn jour mu fekk bi bi bébé jën di bëre ak euh, bébé jën. kundoom bëre frère mm. mu def rëy mu fekk ma ci mikaay bébé jën fekk jour boobu bébé jën maa ko yóbbu mu ñëw dékk moom micro. billaay ma xam ne kii nit ku baax rek moom ñeent at waxuma moom. yaa ma tooyoon de yaa ma tooyoon de mbokk yi jëf kooku mooy Kalso maa lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax du ma fàtte sama xarit ba nga xamante ne ba nga Espagne muy juuf Diouf maa lay jaajëfal bu baax doomu ndey musaa Ndoye doomu nday Caatu Yarax doomu ndey boo Yarax maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax. bor ma Espagne jaarajëf. Kalso sa doom day sa doom day euh, bis boo amee jot. Hmm. waxal waxal waxal euh, ATM mu dem ba France jël ko. moom cartouche. dinañ fa dem bu soobee yàlla. na dem na dem France mu jël. cartouche mën naa fii sax jël ko. waaw ah, nga jël ko. cartouche ah, nee na koo xam si champion la. incha allah rabi. da ko war a jël. Hmm. waroo ko fàtte. Hmm.